lool mooy solution yi apporter apporté yoo xam ne amuñ ci benn emprise noonu la populisme di démarré euh, Allemagne mhm. Hitler lu tax mu réussir dafa amoon benn waaye bu ñu tudd Goebbels mhm. Goebbels mhm. moo doon patron propagande xam nga Goebbels lu mu wax mu ne boo bëggee nit ñi topp la ci li ngay wax da ngay fen neel fen wi nu mu gën a réyee noonu la nit ñi di toppee j'ai l'impression que su ma gaañi

Quel changer cette position par rapport euh, à gagner le mais non non il y a une fin mhm. ah. ah oui il ah, y a une fin mhm. tous les gourous, Bon mhm. c'est ou bien day les bi découvrir super léegi supercherie mu dajale discipline yeeg ñom ñëpp. ñu def li ñu wax suicide collectif. <laughs> xaru xaru. <laughs> ñom ñëpp. waaw lu tax parce que. du bëgg eh, ñi nga xam ne nako ba am ces adeptes là. waaw keneen jaar fa. ba am adeptes yi tol nonu loolu mooy indi en général. Mhm. muy ñuy empoisonner seen discipline yi. wala yu mel noonu pour def suicide collectif. il peut arriver aussi. que discipline yi dem ba découvrir les supercheries. Mhm. fippu waaw. c'est des cas rares mais am na ah. quand même fépp ah. ah. waaw waaw euh, maa ngi ñaan yàlla ñi nga xam ne